waaw ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di ziar gannaaw. tur bi nan la. Coly Senghor. Coly Senghor. waaw Coly Senghor noo gisee lamb ji tey. lamb ji neex na trop. waaye fu ñu toll nii. arbitre yi ñoo ko yàq ak seen mbër. fu ñu toll nii. waaw arbitre ñu ko yàqee. arbitre yi lu ñu def waru ko def waruñu ko def bi nga xam moo nekk sa ah. di bore desu tëdd moo bu ko yàqee lamb bi yàq yàqaat ko fu ñu toll nii saa waay léegi ñu toll nii non arbitre ma bëgg xamawul léegi ci ndog léegi ci na bàyyi la mu njaabat mais doon na bàyyi laamu njaafat da ko bàyyi tout tranquille yàqal nañu ko daaw yàqal ko ren ngir ordinateur xañ ko xañ ko dara lii baaxul c'est pas normal mais doon na bàyyi laamu njaafat grand merci yow jaajëf Fall ñu lay siyaar ñu ngi delloo siyaar ay ma jàppal la sinon nice nice sant yàlla loolu mu ne wax ci lamb ji tey waaw lamb ji neex na trop waaw mais aussi tamit supporters yi ñoo ko yàq waaw déglu leen déglu leen supporter nu ñu yàqee lamb ji. pour man arbitre arbitre mooy décider quoi ak lu mu munti décider même ci defee erreur sax am na ñeneen ñoo xam ne ñoo koy superviser ñoom ñoo ko war a mun a teg ay daan quoi mais pas supporter yi nekkul ñoom ñooy jugel seen bopp quoi tu vois. mais aussi tamit boo seen aussi tamit munoon na nekk sportif boo xam ne moom mu xam ne au moins un jour mus nañ ko jox victoire boo xam ne dakaa démérité quoi te terewul kooku dakaa gérer muñ. xam nga te mbër bu mag la warul yàq làmb quoi tu vois aussi waaw dëgg la arbitre yi aussi tamit mën nañ def erreur mais du nii lañ koy gérer quoi pour man. mais yow yow yow yow selon toi. waaw yow yow arbitre yi def na erreur wala deful man lu ma gis mooy booy seen génnee nañ ko ñu jox avertissement temps bi si jeexee tamit kee lañ mën a jox victoire man selon moi loolu laa gis. non mais non non booy daa bëggoon bind recours. waaw gars yi dañoo bañ. a ah, mais loolu ci commission bi man xaw ma ñoom ni ñuy gérer seen programme ak ñoom tamit ni ñuy gérer seen i waaw loolu moom. kon ñu ngi lay jaajëfal. waaw bég. <laughs> waaw. waa mais waa mais. eh eh waa wuy ma waa wuy ma waa waa wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma eh. eh waa wuy waa lépp leen. sama gaay kon lambu jaami non fi la yam ah. lambu ji fi la yam ordinateur na final deuxième demi final bi xewal la won ak selemele han ah. mais problème bi neena sele neena da bëgg bind recours xawma ndax ba xam arbitre nangu nañ sele bind recours wala en tout cas gaay jaxaso nañ ci digg bi gaay ngi ñibi ordinateur mom mo demone final ni la démé fi ni wa acha léegi ñu dem ok aca tout droit léegi yow seetaan nga demi final bi. waaw situation combat bi noo ko gisee. man dama ne. gis nga ñun waa zone bi laa bëgg a wax fii nii. tontu sama question ba pare boo fa paree nga jàll ci loolu. situation combat bi noo ko gisee laa la wax. combat bi. Euh, léegi bu ñu jox victoire bi moomul victoire bi. temps bi temps bi jeexagul non seulement bu temps bi jeexagul ñu jox ko c'est-à-dire am loo xamante ne arbitre war a wane neutralité te neutralité amul dañoo dafa am parti pris ñu ñu joxe victoire bi layti loolu moo fi am. mais na ndax xam li du làmb làmb waru am warul am farfarloo dégg naa booy di kaas nañ daaw nii la demoon diggante ordinateur ak rajaxe ba njaafal bayrut c'était comme ça dañoo dem ba biir entre rajaxe la ak euh, ordinateur fii la noonu ah. te ñun ko laa wax nga dàgg ma si nga am loo xam ne dañ koy bañ bi li ñun amuñu mbër yoo mag mbër yi ñu jógee ñëw bu ñëwee fii duñ mën a bëre parce que yàgg dañuy rey suñu zone bi à part Passy à part Passy ay amul kenn ku mën a tëgg làmb mbëri mag yi ñoo ñoo ñoo ñoo bëri si loolu dafa ne lu nga xamante ñaaw te ñun ay amateur lañ mbër bëri moo ñu ñor bàyyi suñu liggéey bi guddi bi dañuy taxaw taxawaal ñu maa ngi jógee ba njeej ak ba fii passe mille cinq cent passe deux mille duggaat ci biir làmb moo ñu fi indi dara fi kon na dañ xoolaat euh, commission bi laay ak li nga xam ne abi dañ xoolaat seen bopp lii dañ yàq làmb ji ah, lii yàq làmb la dama ragal lu wax Kéba Kara tudd laa dëkk jaajëf tey kay ba tout leer na ak keneen na keneen ñëw na keneen ñëw gaan kaay waaw ah, maa leen ziar bu baax a baax yéen waa Lamyn TV maa leen ziar bu baax waaw ah, ñun dañu am lu ñu métti parce que ñun yaakaar daal lu may lamb ñu dañoo bëgg lamb barki alxuraan ñun dañoo fees lamb ñun dañoo juddu xam lamb lii nag lii dañu yàqal dañu yàqal ëllëg parce que ay fii mënu am poids lourd ndax yenn yu mel nii defoon nañ ko daaw diggante ordinateur ak rajo xe ko fii ni ñun defaat ko ren mbaa kon déen dinañ am lamb kon nañ kañ nañ seen lamb fii am lamb il faut nga dem Dakar wala nga dem feneen ak feneen parce que foofu mooy doxal ñoom dañoo bëgg ñun arbitre yi ak dimbale ñun ngir yàlla ñoo xam ne population fi nekk ñii ay 2000 ñii 1500 yàq xaalis boobu noonu ñoo instant bi loolu ñibbee seen kër boo moo jël lamb ji situation combat bi noo gisee même kii ni nii eh, booy moom nee na xibaar def na car rapide moom loolu la wax. arbitre yi nee na ñoom gisuñ loolu mais normalement si man si logique man si ma gis man normalement dañoo waroon tiire waat normalement dañoo waroon tiire waat waroon jékki-jékki joxe joxe victoire bi xam ne day andi problème ñu tiire waat même bu fekk cent mille nii yàq nañ perte nañ dix perte les sept ah joxe nañ comme joxe nañ victoire te final mënul am loolu du yoon vraiment maa ngi remercier yi ñëpp eh, seen liggéey rafet na. vraiment lii moom nice na wax dëgg fa yàlla ñu lay remercier bu baax a baax di leen ñaanal gudd fan ak euh, ak continuité vraiment merci beaucoup. tout droit ah, suma gars yi ñoo gisandoo te ñu ñëwoon fii nii Ndiafate Ndiafate Escale ah ñu ñëw ba final lamb ji am problème léegi nag dañuy dugg si amateur yi laaj leen ba xam nu mu demee booy ñu ngi lay ziar de. Ah, ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ziar. booy noo gisee lamb ji situation lamb ji noo gisee. métti xanaa torop sax naqare ak métti dañoo dagg suñ billet 1500 2000 ah ñëw ba fii lambu ji demee nii dafay am daaw si cause arbitre yi ñoo def ñoo def lu mel nii ren tamit ñu ñëw dogalaa lu mel nii lii moom rafetut mbër boo wax mu ne la zone Ndiaffate du ma fa bëree lu tax doo fa bëree arbitre yi dañuy yàq lambu ji waaw mbër yu fi wàllu si woon na ñu ngi leen di ñu ngi leen di jégalu du si ñun si arbitre yi la. da lay waxtaan suñ biir waaw arbitre dem nañ ko daw rentam ñu débar ko waaw Acha wa gis ngeen tout droit lamb ji ni la démé ah demi final la woon diggante Sélémélé ak euh, xéewal bu njaafat à domicile mais eh, dañu jox xéewal victoire té gaay yi Sélémélé d'accord néna recours la bëgg bind affaire moy lolu amateur yaa ngi noonu ñëpp dajaloo ci biir géew bi tout droit ah amateur yaa ngi nii gars yëpp di coow nii la deme fii ci Ndiaffate